laqin lisaani waxlulan minhu luqad wajcalhu zakiran wa shakiran abad wajcal kalaami rashidan wa mursida wa fikrati nawwir wa qalbi arsida assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziyaara di leen balu àq te di leen baal di dikkaat ngir ànd ak yéen rek ci sunu jataayu xam-xam yi baaxoo ànd ak yéen ci ay bis bu jot di fàttalante ak yeen ci téereb sëriñ bi radiyallahu bi mu tuddee Munawwirus Sudur suñu bind bi mujj ñi ngi taxawoon ci dog bi nga xam ne ci la sëriñ bi radiyallahu anhu doon leerale euh, ni ñu war a jëfandikoo ñaari loxo ci ak topp yàlla waaye ni ñu war a moytandikoo euh, ak moy yàlla ci ñaari loxo yooyu nga xam ne xéewal la gunu suñu borom bi subhanahu wa defal mu mel ni ci dog boobu ci lañ taxawoon dog bi nga xam ne moom lañu ñu bëgg a wëyal ak yéen tey rek day aju ci ñaari tànk muy faslun firij lay ni lii ab dog la boo xam ne ci li muy wax mooy ñaari tànk ak ni nga xam ne noonu la ñu ko war a fonkee waaye ak ni ñu ko war a jëfandikoo ngir jaamu ci suñu borom bi subhanahu wa taala waaye ni ñu ci war a moytandikoo mooy suñu borom bi subhanahu wa taala sëriñ bi ne tamshi bul dox bir rijlayni ci sa ñaari tànk lil xaraami jëm ci lu araam balistain li fi ne kay mooy nanga nga dimbandikoo bihima ci sa ñaari tànk yooyu alal maraami ca say càkkutéef sëriñ bi radiyallahu anhu nee na bul dox ci sa ñaari tànk mukk di jëm ci lu araam lépp loo xam ne xam nga ne suñu borom bi subhanahu wa taala koo araamal bul dox ñaari tànk mukk di jëm ca lu araam loole ndax loolu day mel ni weddi lay nuru ndax tànk yooyu ki la ko defal mooy suñu borom bi subhanahu wa taala te li mu ci namm ci yow mooy nga ci euh, dox euh, di ci jëf aw yiw waaye di ko dimbali ngir di ci faj say soxla yi nga xam ne suñu borom bi subhanahu wa taala daganal na ko ci yow waaye nga ci dimbali ko ngir mën a jaamu suñu borom bi subhanahu wa taala kon tax sëriñ bi ne laa tamshi bul dox bir rijlayni ci sa ñaari tànk lil xaraami jëm ci lu araam loo xam ne suñu borom subhanahu wa def ko araamal balistain li fi nekkay na nga dimbandikoo bihimaa ci sa ñaari tànk yooyu alal maraami ci say càkkutéef sëriñ bi ne imshi na nga dox ilal masjidi jëm ca jàkka laa ila zunubi déet di jëm ci ay bàkkaar laazim na takkoo ibadatan ak jaamu yàlla wama ak lépp la nga xam ne yanubu dana wuutu anha ci ak jaamu yàlla sëriñ bi radiyallahu anhu nee na na nga euh, jël sa ñaari tànk yooyu di ci dox di wuti fu mel ni jàkka nga xam ne jàkka barab la boo xam ne suñu borom bi subhanahu wa taala daf ko teral lool te muy néeg bi nga xam ne dañuy wax ne suñu borom subhanahu wa bu fekkoon ne dafa wàcc ci kaw suuf ci néeg boobu lay fanaan ndax moo di am néegam te mooy euh, li nga xam ne moom dong moo ko jagoo moo taxit mu wax ci alquran wa anna al masajida lillahi fala tad'u loolu li muy tegtale mooy jàkka euh, moomeelug suñu borom bi subhanahu wa taala kon na jël sa tànk yooyu nga xam ne yàlla moo la ko xéewalale te du lenn loo ko defal ba mu war la koo xéewalee su ko defee ngay dox di jëm ca jàkkaam yooyee ngir lan ngir dem di fa taqoo ak jaamu yàlla waaye bul jël tànk yooyu mukk di ci dox di jëm fenn foo xam ne dafa araam kon loolu lu ñu mën a dimbandikoo la ci ay tànk ngir topp suñu borom bi subhaanahu wa taala waaye lu ñu mën a dimbali la ci euh, jëfe ndigal li nga xam ne moom la suñu borom bi subhaanahu wa taala digal moo tax sëriñ bi radiyallahu anhu di wax ci euh, nahju wamshi li ajli xaajatin duna ixtiyaal fal ixtiyaalu jaalibun ila nakaal na nga dox jëm ci aajo yoo xam ne moom nga am say tànk na ciy dox di jëm ci aajo yoo xam ne moom nga am waaye bul ci dox di daagu mukk ndax daagu day yóbbe nit ki ci toroxtaange waaye day yóbbe nit ki ci alkaande di waxaat ba tey ne laata laa na dahra min xayri ajab wala tamit lil mashi min xayri arab euh, bul ree mukk ci jenn jamono lu dul da ngaa gis lu la yéem loo xam ne ci nga war a ree waaye it bul dox di jengal sab dox wala ngay juug di bonde ak wàcc euh, di rëy rëylu ci kaw suuf si nee na loolu lépp euh, bul ko def ndax loolu suñu borom subhanahu wa taala daf koo ŋàññ daf koo aayal bu baax a baax a baax a baax ba tax muy wax ci alquran ne wala tamsi fil ardi maraxan innaka lan taxriqal arda walan tabluxal jibaala tuula bul dox ci kaw suuf si di yëkkatiku di won sa bopp ni nga toll ndax mënoo yëkkatiku ak a wàcc ba mën a bënn suuf si ci ne ngay def noonu waaye mënoo yuqamtiku ak a njoolu ba sut montagne yi kon loolu li muy wone rek mooy nit ki dafa war a toroxlu waaye wërta sukkandiku ci tànk yooyu nga xam ne moom la ko suñu borom subhanahu wa taala defal di ci def ay mooy yàlla waaye di ci def ay bàkkaar kon li fi rek mooy dafa war a sukkandiku ci tànk yooyu lépp loo xam ne moom la sëriñ bi yàlla moom la suñu borom subhanahu wa taala digle mu def ko waaye lépp loo xam ne moom la ci suñu borom subhanahu wa taala di loo mu moytandiku ko moo tax sëriñ bi waxaat ci euh, euh, masalik wa saayi wa nazri lil xaraami wa kullu ma qabaxa fil kalaami euh, mi ngi wax ci bunt bi nga xam ne dafa doon tënk ci li nga xam ne mooy ñaawteef yi nga xam ne doomu aadama bi war na ko moytandiku mu fay lim bay wax ne ak dox wala ngay xool jëm araam wala lépp loo xam ne mooy wax ju ñaaw ne na yooyu yëpp ay ñaawteef la yoo xam ne doomu aadama bi war na koo moytandiku bu baax a baax a baax a baax kon loolu li muy tegtale mooy euh, nit ki daf cee war a jàngate ne ñaari tànk xéewal la bu ko suñu borom subhanahu wa taala jox daf cee war a dimbandiku ngir topp yàlla waaye waru cee dimbandikoo di moy suñu borom bi subhanahu wa taala moo tax sëriñ bi di waxaat ne wa bihima euh, wala tamshiyan bul dox bihima ci sa ñaari tànk yooyu illa lima ndare la nga xam ne euh, rusduhu njubam ga xadon lima xameef na ko indal ilahi fa suñu borom subhanahu wa taala nee na bul dox mukkut ci sa ñaari tànk yooyu di jëm ci lenn loo xam ne euh, suñu borom subhanahu wa taala araamal na ko bul ci dox mukk euh, jëm ci lenn loo xam ne yàlla leeralu ko te ñu xam ne lii lu jub la tey lu suñu borom subhanahu wa taala gërëm la waaye lu ab jullit war a def la loolu saa bu amee na nga xam ne kon la ngay dox jëm euh, lu suñ borom gërëm la waaye saa boo xamee ne la ngay dox jëm du lu suñ borom bi subhanahu a taala gërëm ay moy kese la euh, bu boobaa loole loo ko bëgg-bëgg ak loo wone sa njàmbaar njàmbaar loolee du tegtale ne an njàmbaar la waaye ak mooy yàlla gu ñu war a moytandiku la euh, moo tax sëriñ bi di ñu leeral foofu ne ni nga xam ne noonu lañ ki war a doxe jëm mu nekkal mash yi ni ki dox lil islaahi di jëm ci yéwénal diggante ñaari jullit ñoo xam ne dañoo amee ab diggante euh, ba xaw a noonoo wala dañoo am jafe-jafe ci seen biir ba xaw a meroo am lu dox ci seen diggante ngay dox dem di yéwénal diggante boobe sëriñ bi nee na lu mel noonu day ak jaamu yàlla gu màgg la te dox ci seytaan tànk ngir defari diggante bu mel noona loole ak jaamu yàlla la te lu suñu borom subhanahu wa la gërëm la ndax suñu borom ma wax ci alquran ne wa inna taifataani min almuminina ixtatalu faslihu baynahuma saa boo xamee ne ñaari kuréel ci euh, euh, jullit yi am nañ jafe-jafe ba euh, xeex na ngeen yéwénal seen diggante kon na nga yéwénale ñaari kuréel yooyu donte ne ñaari mbokki jullit yi lu am yu am ci seen diggante ab diggante bu boobaa itam dox yéwénali diggante boobee loolee lu suñu borom subhanahu wa taala gërëm la awli sillati wala dox ngir euh, euh, dox ngir euh, yéwénali ak mbokk wala dox ngir dëgërali ak mbokk wala dox ngir siyaari ji sa mbokk yooyu yëpp nit ki war ko koo def ci ay tànkam ngir ak jaamu yàlla la te lu suñu borom bi subhanahu wa taala gërëm la wanax wi ha ak yeneen yu ko nuru yeneen yu nuru loolu lu ki mel ni dox dem seeti koo xam ne dafa tawat comme ni ñu ko sëriñ bi radiyallahu anhu leerale ci yeneen bayit ki euh, li muy wax ci masalikul jinaan di wax ne kasastida kasastidaadul mashi bis saaqayni maa lazi istaxaasa duuna mayni iaaratun iyaadatun tashyiu janazatin wa xamluha almasruu taaziyatun ziyaaratun ta'niisu zi wixsatin qad qaalahu raisu nee na yooyu yëpp ay mbir la yoo xam ne nit ki war na cee mën a dimbandiku euh, ci ay tànkam ngir def ko tey du boobaa fay suñu borom subhanahu wa taala rek la cay amee lu ki mel ni nit koo xam ne day sàkk ku ko dimbali euh, dafa am jafe-jafe mel ni euh, dafa këram da doon lakk masalan muy sàkk ku ko dimbali nga daw ak say tànk dem jàppale ko ba xettali ko ca loole wala mu am beneen jafe-jafe boo xam ne moom la am këram nga daw dem fekk ko fa dimbali ko wala sa mbokkum julli tawat nga dox ak say tànk dem ca hôpital ba seeti ko walla dem ba këram seeti ko wala sa mbokkum jullit bàyyi koo fi nga dox ak say tànk gunge ko ba jëbbal ko suñu borom bi subhanahu wa taala wala sa mbokkum jullit am aw tiis nga dox ca ngir dem jaale ko tiis woowee wala ci boppam nga jul dem siyaare ji sa mbokkum jullit loolu lépp ay mbir la yoo xam ne saa boo xamee ne jug nga ak sa ñaari tànk dem defi ko na nga xam ne yaa ngi def lu neex suñu borom bi subhanahu wa taala te it yaa ngi def loo xam ne loo suñu borom bi subhanahu wa taala gërëm la kon looloo tax mu ne wa wi naxwiha ak yeneen yu ko kon bari na lool li nga xam ne moom lañ mën a jaamoo suñu borom bi subhanahu wa taala ci ñaari tànk waaye yooyu yenn la ci moo tax mu ne wa wi naxwiha min saalihatil milla ak yeneen yoo xam ne yu yiw la yoo xam ne yoon wi xam na ko bu baax a baax diine xam na ko tey rafetlu na ko bu baax a baax a baax kon euh, euh, loolu li muy tegtale mooy day tegtale ne ñaari tànk nit ki war na cee mën a jaamu suñu borom subhanahu wa taala bu baax a baax waaye nit ki war na cee mën a euh, dimmandikoo ngir yéwénal ay diggante waaye war na cee mën a dimmandikoo ngir mën a euh, dimbali ñi nga xam ne ñooy ay mbokki jullitam war na cee mën a dimbali ko itam ngir mën a faj ay aajoom waaye it war na caa mën a moytandiku di dem ci lenn loo xam ne suñu borom bi subhanahu wa taala daf ko araamal lu mel ni di dox di jëm ci ay baar yoo xam ne euh, ay ak mooy yàlla rek lañ fay def wala dox di jëm ci naanukaayu sangara foo xam ne ak mooy yàlla rek lañ fay def yooyu yëpp barab yooyu nga xam ne suñu borom subhanahu wa taala gërëmu ko nga dox fa dem fa di fa wone ak njàmbaar loolu day ku koy def na nga xam ne nekkoo ci aw yoon waaye euh, li nga xam ne moo tax xéewal gila suñ suñu borom jox muy xéewalu ñaari tànk yow xamoo xéewal googa te xéewal googee yaa koy weddi moo tax sëriñ bi di wax ci nax ju ba tey ne laysa shujaau allazi yaxmi fawarisahu yowma tiaani isamal xarbu tastailu lakin man gadda tarfan aw sana xadaman anil maasi fa zaaka al farisul batalu ne na de du xam ne mooy ki nga xam ne saa bu xare amee rek mu wone ak njàmbaaram bu baax a baax wone ak ak gawaram bu baax a baax a baax mën a xeex lool mën a défendre boppam lool waaye jàmbaar dëgg daal sëriñ bi radiyallahu anhu na mooy ki nga xam ne moo gëmm boppam ci lépp loo xam ne moom la suñu borom subhanahu wa taala araamal waaye mooy ki nga xam ne moo lem ndëggoom maanaam moo lem ab tànkam gàttal ab tànkam ci lépp loo xam ne moom la suñu borom subhanahu wa taala aaye mu di ak mooy suñu borom subhanahu wa taala mu bañ koo jege fenn mu bañ caa dox jëm mukk sëriñ bi radiyallahu anhu nee na kooku mooy jàmbaar dëgg kon nit ki ak njàmbaar euh, du ci euh, mën a xare waaye ak njàmbaar mooy lan mooy xam li suñu borom bi subhanahu wa taala digle euh, ngay dox sa kem kàttan ngir jëfe ko waaye xam li moytandiku ngay def sa kem kàttan ngir di ko moytu kon yooyu lu ama am solo la kon ay tànk nit ki war naa xam ne xéewal la bu ko suñu borom bi subhanahu wa taala dénk saa bu ci jëfee ndigal yi nga xam moom la suñu borom bi subhanahu wa taala digle bu boobaa ma ngay sàkku tuyaaba te it suñu borom subhanahu wa taala dana ko bindal ay tuyaaba ci loole waaye nag saa bu ca defee leneen loo xam ne suñu borom subhanahu wa taala daf koy araamal wala daf koy tere bu boobaa na xam ne weddi na xéewal goo xam ne suñu borom subhanahu wa taala defal na ko te la koy jural mooy ay bakkaar yu bare bari rek ak bakkaar yu màgg-màgg kon loolu moom lañu ñu bëggoon a andi ci bindub tay bi ñuy tuub bu baax te jéggulu euh, lu ci dëng ngeen xam ne ci jë ji doon def ju xeebu ji doon def waxtaan wi la waaye euh, lépp lu jub rek lañ ci bëggoon in uridu illa al ma stata'tu wa ma tawfiqi illa billah wa salaamu wa rahmatullahi wa barakatuh ala sahabati wa saadati kullihim ridwaan rabbil araadi wassamaawaati ala saxaabati wassaadaati kullihim ridwaan rabbil araadi wassamaawaati